photo bi Samira Ba mhm. bu fekkente ne ñëw na mhm. xàmmee ngeen ko moom Samira Ba mhm. xàmmee nga ah daa mel daa dégg alxayri day dégg alxayri jeudi insha allah ki nga xam mooy kalaa ki nga xam mooy Dóora Gueye day dóorati ah, de day takk ñeenteel de mbaadu Samira Ba day faral nag di nekk ci ay euh, kii série sénégalaise yi di jouer ah xale la elle est euh, ñu ngi ñuy wax ñi sax moom mag ki nga xam ne mooy rek ay dara ñoo maase. Mhm. ay un deux ans la ñuy magante donc ay morom lañ moom it euh, ñu ngi naan ñu dafa war a takk ki nga xamante ni rek moom mooy Samira Ba jeudi incha allah ba mel ni sax tey jii nii jamono bi ñu ko xoolee dañuy gis ne. Mhm. Khadija moom mooy awo. ki nga xamante mooy Rekk Aydara di ñaareel euh, mhm. ki nga xam mooy Clara di ñetteel. waaye moom mi mooy ñëw daal di tëj baal bi nekk ñeenteel. waaye Rekk Aydara. moom jamono ji tamit. ki nga xamante mooy ex jëkkëram di l' international footballeur moom fan yii mu ngi koy toppaat. Babacar Gueye ngir mu tas sëyam ñëw ànd ak moom sëy ak sëyaat ak moom. <laughs> jamono ji loolu tamit ñu ngi koy topp ndax nabu Dash sax moom def na ab euh, live. di sax leeral di joxe sax ay preuve yu wane ne. Euh, kii da koy toppaat ba sax euh, am ay vidéo ay audio plutôt yoo xamante ne ay message whatsapp yoo xamante ne ñu ngi gis si kee di nga xam ne si jëkkëram di ko message di ko saraxu ngir kër mu daal di ñëwaat si mariage am jàpp nañ ne nag daf ko yërëm ak euh, li nga xamante ne moom ndaw la xale la mm. et ak mu ngi am carrière bu baax boo xamante ne mu ngi koy am si li nga xamante ne moom mooy milieu showbiz bi mm-hmm. muy si côté animation muy si côté série yi muy joué mm-hmm. en tant qu'actrice ñu ne da ko xëy na dafa gis li nga xamante mooy erreur la luñ lu mu defoon loo mm-hmm. xamante ne moo indi seen euh, li nga xam mooy divorce mu bëgg ko ñëwaat parce loolu dafay am parfois mhm. parfois ngay gis góor boo xamante ne da ngeen di divorce mais du question dala bañ mhm. ndax xol bu lu si njëkk tësa dëgg léegi nag da lay bëgg mais bu demee ba ci biir gis na kat yaa ngi si yenn circonstances yi xolu yërmandeem day ñëw mhm. da bëgg a toppatoo la tàddakal la wan la yoon accompagner la aussi non comprendre naa foofu de mais damay wax comme si jikko góor dama ne góor ñi ñu si bëri. loolu ne dafa faa da gis koo xam ne dafa divorcé tey jii ak maane ne man de maane mii ni gis naa ko fan yii nii ak nii man dama ko yërëm dama ko bëgg a tegaat sama wet toppatoo ko nii ak nii dañuy am bëbët bi mais day fekk ne c'est trop tard fekk ne kooku mu ngi si sëyam mais jamono ji moom mu ngi koy toppaat actuellement ay satu Babacar Gueye mm-hmm. dëkk Médina mais mm-hmm. en tout cas waaw ah, jaaxal dama foofu di li mm-hmm. nga wax nii mais mm-hmm. yàlla baax na parce que ah, munoo munoo munoo waxaat nit ñëwul ñu maax te mu nekk ci buum loolu da nga si am bàkkaar sax dëgg la loolu loolu soo sa loolu ça ne se dit pas mm-hmm. am ne fekkoon eh, mi ngi célibataire ndax Racky ak Babacar sëy nañ presque deux ans Medina ñëpp xam nañ sëyu Racky ak Babacar parce que Babacar Medina la dëkk Babacar man xam naa ko donc euh, doon na mbir boo xamante ne moom mi ngi wéyal footballam ci réewu naar yi Racky mi ngi sëyaat man foofu li may conseil Babacar li ma koy wax lenn la na ñaanal rakki sëy bi mu am ci njaboot bu baax kel moom mu continuer defar viom rakki def viom loolu daal laa si gis et quant à euh, gel bi ñu posté léegi je sais pas Samira Samira Ba euh, euh, pour man jamono gii nii li ñuy wax saa su nekk rek am na loo xamante ne doy na ko sëkk parce que Doro bu xamoon ne day takk Clara dimanche bu xamoon ne day takkaat Clara dimanche à 17h rakki ay dara publier photo ya kon tey jii nii amaana Clara du publier photo yi nga xamante ne wane na nag takkaat nañ ko parce def na shooting ba denc ba noppi.

dimanche da ko defoon denc ko mais quant à Clara dimanche lañ ko takkaat kon pour man Dora instant bi ñu ngi xool kan fan la war a mën a aaye balaa moo takk ñeenteel. ah en tout cas nee nañ euh, li nga xamante mooy jeudi lay takk ñeenteel Samira Ba donc de toute façon ñun bu dee dina takk jeudi. nañ ci xam dara parce que gens yi bu ñuy takk duñ ko duñ ko fësal. non ñoom duñ ko fësal xam nga yow tey yow mi góor di takk mën nga wàññi mm-hmm. fësal mais ku jigéen ke ngay takk. jigéen moo mel noonu day bëgg di ko fësal. Mhm. kenn xamul fan la jógee bu dee dina takk moom est-ce que xam nga ni Dora Clara nekk nañ di sëy Dora di dund ak rakki lu neex te takk ko. Mhm. ba mu demee nag ba ne ko carrément kilifa laa ci réew bi bëgguma ñu may par parparloo bëgguma ñu naan gis nañ sama bopp fee wala faa. Mhm. fa la ko takkee te genre yooyu noonu soo ko takkul kenn moo leen di gis. yàgg nañ fi gis célébrité yoo xamante ne tey voilà da ngay jékki-jékki rek. Euh, jékki ñu ne diw mooy takk diw comme day asusaal ni mu ko waxee ci gàmmu gi neena na jékki-jékki ñu nekk ay rumeur nee mu dem ba affaire bi jël beneen ampleur diwo may takk diwo may takk te yëgoo c'est-à-dire que peut-être tey nit gis na la ak diw wala kat doora a bañoon na nit ki yëg ne kat mu ngi doon defaral rakki dara mm-hmm. récemment anniversaire rakki ay dara euh, xaalis millions yi nga xamante ne yàq na ko ci bu ko takkul woon bien avant loolu Clara dina ko moo tax ma ne démb takkum doora ak rakki ay bett Clara parce que genre yooyu doo xam ne sa jëkkër a ngi takk nga ni da nga ciy teel a jug. si parce que si. côté moo tax kon Samira bu fekkee dañ ciy takk. dañ ci teel a def kot. voilà xam nga tey si côté côté gis bi gis naa fii sa jëkkër nangam ak nangam. moo mhm. indi woon problème ak aawam ba mooy Khadija Khadija daf ko tàggu woon. fenn demul woon foofu far yàlla Karara gis ko boobu taqagul woon Karara photo jabar ji ne ko sa jabar de lay laata santeel tey sa première dame mu gis ko si lañ amee woon problème ba ki ku góor ki ku jigéen ko fay ba mu fayee woon après nag si lañ juboo waat tombé na mu takk sa Karara ñu gën a am problème mais n'empêche si lañ juboo moo tax gis nga jigéen mm-hmm. bu la nee non secrètement jigéen moo mënut a def relation secrète munul ne mm-hmm. parce que surtout rawatina na koo xamante ne dafa war a wujje non bu amee da la koy dugal. te ins bi ma doole. nga ne koo dugal dañuy var doora dañuy naan. doora xale bu jigéen bu mu doxaanoon dañ koy génne pour rakki xam ko mhm. Clara xam ko Khadija xam ko mun na bañ a takk mais instant bi ba en 2002 doora célébrité yi mu gén génn wala ñi mu takk takk suuf démb ba léegi ñu ngi koy génnee am zozo mi ngi ciy wax keneen ne Ahmed Cissé démb ñu ngi ciy wax c'est-à-dire que dañuy alerter ay jabaru doora naakan sa jëkkër mi ngi doon génn ak diw mi ngi doon génn ak diw en tout man moom benn rek laa xam ne mën na ko takk benn laa xam ne yëgoon naa ko et boobu moom moo ma si leer nañ naññe ma teg si sama bët mooy bu Mbathio Ndiaye takkoon na ko takk suuf mu jox ko 20 millions ak oto boobu moom man leer na ma bu nga xamante ne mooy Awa Balde boobu man moo ma woon mhm. ndax ñu ngi gis mu ngi wax mais awabal de posté na si li nga xamante mooy Snapchat am parce que xool naa ko de mu ne dinaa ko ñëw leeral mhm. après mu def DG. Mhm. nga xam ne Doro Gueye la mu ne mhm. dinaa fa ñëw leeral def DG. Mhm. kooku moom gëw ma ne xëy na peut mën na am. Mhm. sekk nañ dara. wala soit mën na génn ak moom parce que gis nañ fi ñuy génn ak ne après doo ko takk yàlla def nga dem takk keneen. mais bu fi nekk génn bi moom nga jël di fi basé ay diw doxaana diw di doxaana diw. ku si nekk sa jëkkër balaa mu laa takk doxaana fukki gel ak juróom ñaar mais yow la tànn indi la si këram. c'est quoi le problème. en tout cas ma li may ma. lu ji njaag doora mooy njaag en plus moom kese nekkul Sénégal koo xamante ne dañuy war a xëy di toog di wax ci moom am lu ñu yoon mm. importance parce que li ma waxoon démb laay waxaat gis nga lii nii mën mm-hmm. na ko yóbbee loo xamante ne pôle judiciaire financier bi ñu woo mm-hmm. ñu épinglé ko te bu boobaa doo tutalati ay jabar parce que dafa nekk sous contrôle judi non dafa nekk sous moom laa lay provisoire la nekk mënta génn Sénégal kon mhm. takk takk yi muy takkee nii mieux vaut mu gérer këram te focus non am na droit takk ñeenti jabar aussi mais nag mais non non mun nga takk kenn mhm. bañul parce que góor la mhm. mais def ko discrétion say jabar après bu ñuy wujjee ñoom la mais pas par parloo ci internet bi comme li ma wax démb dama ne Doro bu ko leeroon ne bu takkee Clara timis rakki génnee photo yi parce que rakki xamoon ne dañuy takkaat Clara. Mhm. moo taxoon mu waajal di xaar. démb rakki confirmation la def. kese moo tax xale yi naan oh, oh, bureau de vote yëpp rakki gañe na ko. Mhm. noonu la ko xale yi di bureau de vote yëpp <laughs> rakki gañe na ko parce que rakki bu génneewul woon loolu démb dañ naan rakki takku suuf lañ ko takk cest à am mais médiateur ñu ko benn médiation boo xamante ne ñëpp dañ ci yee di yàbbi. mais du doora nag ci jigéen ñi la rek non non c'est pas c'est pas jigéen ñi. parce que mm. jigéen ñi takkuñu seen bopp. Euh, mm. maa ne. Mm. doora moo takki. doora moo takki góor boo takkee da ngay yemale sa kër. Mm-hmm. moom moo dem takki ay célébrité en tout cas daal. Mm-hmm. doon mooy. takk naam takkul. day sëy sëy na gérer te xam ne. Mhm. alal réew mi ku ci nekk rek mën nga gérer sa kër. daa nekk sous contrôle judiciaire ñetti jéeg la am n'est-ce ku ci nekk yaa ngi sa kër ku ci nekk na nga gérer doora bu ñëwee. ma ne Khadija man dama ko nam mais tey da nga gérer doora sinap ko ma gérer doora mu jox ma fleur. kii géré door a tegal ko di ko commencé benn tànk mais loolu du sëy quand nañ waxante dëgg mm-hmm. voilà lépp day ñëwaat rek ci cadre <laughs> wujjee ni ñu ko tàmm gisee <laughs> wallaay euh, waxati ko ci Sénégal mais en tout cas yaakaar naa ne euh, euh, ku nekk war nga mën a rek nekk ci ruq bi nga nekk daal di def li nga warloo ak sa borom kër naan di tibb sa compétence lu neex